gën jaa sell ay nuyoo di leen dalal ci barab bu màgg bu tedd bii di daara Majmahun Nurayni di daara ju làmboo ay njariñ yu bari suñ boroom def circonstances yi nga xam ne ci lañu ko taxawalee mooy wane résultat yi nga xam ne daara ji am na ko di jiite ci nuyoo bi nag suñu kilifa mi nga xam ne kon ginnaaw yàlla li yëpp cee taxawaayam la ame sëriñ Habibou Sakho ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi sëriñ Habibou nag wax dëgg yàlla di koo xam ne ku jaboot la bu ñu waxee loolu mooy ay génération génération jaar nañ ci ay loxoom mu taxaw leen jàngal leen tàggat leen dañ koo miinee ak daara ji waaye ak bëggam lu baax moo ko moo créé daara ji sëñ Habibou Sakho di jàmbaar lool di nuyu itam bu baax sëriñ Moustapha Sakho mi nga xam ne tey jii moo nekk ci daara ji di fi liggéey ñu mm, tàmbali wala bokk sof kon wéyal liggéey bi def ci liggéey bu am solo boo xam ne itam wax dëgg yàlla kawana njorto yi lool ñun ñu jaaroon ko daara gi ñëpp Moustapha Sakho fierté la ci ñun maanaa daalika mooy ku ci nekk ñun rek waroon ngaa ñëw fii toog di def li muy def waaye moom mu nekk fii di ko def defir woo xam ne dangay doo gis benn différence entre ñi fi njëkkoon nekk ak moom loolu kon di firndeel loolu kon di firndeel ak njàmbaarteem waaye itam di nuyu bu baax di siyaar di jox wàccuwaay bu mat sëriñ Jili Abdul Qadir Gueye sëñ Jili mi nga xam ne itam ginnaaw bi sëriñ bi bu nekkee kilifa daara ji moom lañu ñu boole loon mu doon ñu saytu di ñu taxawu résultat yi bari na ci daara ji lool waaye ma naa xam ne la ca ëpp ab loxoom fës na ca mooy itam kon lañ koy nuyoo di ko jaajëfal di ko jox wàccuwaayam bu baax di nuyu itam mboolem ñi nga xamante nañ ko jotaay bi suñu nijaay Serigne Daouda Sakho waaye itam sëriñ Moustapha Guèye loolu dana ma may sax ma dugg ci ñi nga xam ne barab bu am solo bii bi ko sëriñ bi bu nekkee jëwriñ ji ànd nañu ak moom di ci amal liggéey bu am solo tàmbalee ko ci euh, sëriñ Basiiru Jóob sëriñ Basiiru mi nga xam ne li ëpp ki daara gi ñu bari moo leen dalal tàmbalee ko ci sunu jëmm yu xeebu yii nga xam ne moom moo ngi dalal Baasin Mim atum 1997 la woon boobu daara ji mi ngi tey gu bees waaye itam noonu itam la dalalee ñu baree baree baree bare ci daara ji nga xam ngeen ne daara ji dégg naa léegi sëriñ Mame Balla Guèye wax ko 1995 la ñu taxawal daara yi Majmahun Nurayni lu jiitu 95 daara ji Kanzul Muhtadin la woon la ñu ko tudde woon dinaa ñëw léegi ci li ko soppi incha allah dinaa ñëw léegi ci li soppi daara ji jëlee ko ci ma euh, Kanzul Muhtadin andi ko Majmahun Nurayni yaakaar naa sëriñ Mame Balla junj na ko waaye kon daara ji 1995 la ñu ko taxawal circonstance yi ñu ko taxawalee nag mooy daa fekkoon rek ab mbooloo walla kon ay jëmm yu bëgg lu baax bëgg itam gën a yaatal liggéey bi fekkoon na booba daare sëñ Habibu Mbàkke al imaam mi ngi fowoon sëñ Habibu sax damay dégg muy wax ne daara ji dañuy wax du wax ne sos waaye mën nañu kon dañ koo sof daara ji dañ koo sof ci daara sëñ Habibu Mbàkke al ndax laata ñuy taxawal dara gi suñu bibu saaxum itam ku fësoon la ci daayira suñu abibu mbàkke moom ba sax daaw ci documentaire bi ñu defoon dégg nañ sëriñ Hamdi Moustapha Diop bi nga xam ne moo leen tudde bis bi tey di wax ne daayira suñu abibu ji fi mu nekk tey jii suñu bibu saaxum yi moo ko joxe daara ji ngeen dégg muy daara ju mag a mag daay suñu bibu yaakaar naa ñi ko umpale bëriwul suñu bibu saaxum mi nee ñu moo joxe turu wala bokk moo joxe pàkk bi nga xam ne euh, fa la gi nekk tey jii bi ñu taxawalee daara ji 1995 mu ànd kook sëriñ Moustapha Guèye sëriñ Thierno Dia sëriñ Sidi Fall ak ñeneen ñeneen ñu bari sëriñ Bassirou Diop bari woon nañ nga xam ne ku ci nekk daa am loo safoo woon sëriñ bi bu saaxoo mu nekkoon jëwriñu mbooleem luy ñeen njàng mi moo ko yoroon nga xam ne moo yor lépp luy njàng meek ya ca aju mën nañ ko tudde kon mudiru dirasat mooy sëriñ bi bu saaxoo ku ne Serigne Thierno ja yoroon lépp lu ñeel saytu donga yi ci wàllum administration wàllum lu ñuy soxla ci wàllum tabax bu daara ji waree tabax ay bâtiment bu waree bu waree bu waree Serigne Thierno Dia moo yoroon yooyu ñaa ngi fàttaliku ci ay jamono matoon na li mu doon ba léeg-léeg sax ah, bu masaana ñëw ci daara ji daaw fi ñëw ak loxoy neen xam ne ñi ngi fi xam nga ci syndicat bi yàgg na fee jege dem jënd ay mangoog ay orange ak ñoom seen indi xam ne bu ñëwee bu nee gisee suñ Cerno ja di ñëw rek ñëpp daañu bëgg xam ne tey moom daara gi dana neex naka noonu itam Serigne Moustapha Gueye mii toog nga xam ne itam moom lépp lu ñeeloon gone yi nekk ñu ci daara ji gën a ñoŋ liggéeyee ma woon maa ngi fàttaliku booba ñëwagun fii benn bis boo xam ne ay saako la fa indi ay saako ku ci nekk ci ñun jox na la potum ndagg ak potum sokola potu ndagg yi njëkk yi daan yelwaane ku ci nekk jox na la potu ndagg ak potu sokala maanaam potu ndagg bi ci ngay yelwaan añ beneen pot bi itam boo demee ñu sarax la yeneen yoo xam ne da ko mën a boole nga def ko ci pot boobu si Moustapha Gueye mii toog moo ko daan andi andi na ko fa boo xam ne ku nekk ci ñun am nga potum ndagg ak nga potub sokala daara ji riir lool kontaan lool waaye tamit yëmu ci xam ngeen ne donga ak ay toilette daana xaw a day waar léeg-léeg su ma saana ñëw la muy njëkk a def rek gëstu mooy ji fan jafe-jafe moo fa am yàq-yàqu ba miinoon nañ si Moustapha Gueye lool ci bu ñëwee summeeku dem ca wana wa raxas ko ba mu set wicc wicc wicc moom si Moustapha mii hmm. loolu la féetoo woon mooy lépp lu ñel tëdug daara ji ak luy tax daara ji gën a ñoŋ xale yi nekk ci nekkin wu ñoŋ moo ko jiite woon bu ñëwee itam bu ñu waree buub daara ji ñu buub ko suñuy bu saaxo itam kon ni ma ko waxee di saytu suñ daara yeeg jàngalekat yeeg ca la ca nekk waaye itam ñun donga yu nekk ci daara ji suñu bi bu dañoo jaboote woon ba xoolutoon ci ñun yow sa sa baay moo la war a gëndal téere wala yow sa baay moo war a jëndal aliwo déedéet sëñ Ibou Sakho lim ñu jàppe woon ñun waa daara ji mooy ak njabootam ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun rek bu ñëwee ndeysaan su ma saana ñëw da ngay gis gaa yi dañuy dem benn par benn kii dañoo ne nangam laa bëgg kii ne nangam laa bëgg kii ne nangam laa bëgg man maa ngi fàttaliku benn jour daa ñëw ma ne ko téere bi may jàngee daa jeex fekk boobu wax naa ko ñaari yoon xam nga léeg-léeg day xaw a fàtt mu jël ab carnet bind ko ci bind gi téere Modou Soxna li ma wax ne bind na ko ci daa am ko ma gis na ma xanaa da nga war a wutloo bàyyi saako téere ma ne ko waaw ma ne damaa gis mu bind ci kër na bi mu yor téere moo du soxna nga gis ne buñ masaan di bind kaamil suñuy bi bu saako moom moo ñu jox kayit mi ñuy binde daaji man toog naa sax këram këram waa kër sëriñ Soxna bu ñëw fa di wut si daa nga xam ne foofu moom kayit bu ñuy bindee alxuraan ak daa ak yi xeetoog yooyu moom sëñ bi bu daawul moom da koo féetoo def ko liggéeyam te jàpp naa ne ba léegi ma nga ca nga xam ne kuy bind rek moo la koy jox matoon li mu doon lool kon yaakaar naa wax naa la circonstance yi nga xam ne ci la ñu taxawee daara ji mu nekkoon 1995 nekk nañ fa nag ba 99 yàlla dogal sëñ bi bu mii suñ borom boole ko woon lool ak Serigne Saliou yàlla dogal mu wóolu woon ko lool bi nga xamee ne école yi tabaxa nañ ko fi ragal naa président Abdou Diouf moo ko fi tabaxoon. dëgg la bi ñu ko tabaxee ba koy bëgg a tàmbali eh, ci la Serigne Abibou la ko si la ko Serigne Saliou yëg santaane ñu dakkal ko. damay dégg sama nijaay wu sax di wax ne jot nañu fee jàng benn yoon mu wax ne barab bii keroog bi ñuy nangu ci caabi ji Serigne Sidi moom Serigne Abdou Lahad la Serigne Saliou yebal. tey moom la yebal mu ñëw nangu ci ko te barab yi ni nga ko tabaxee woon ci dëkk bi dangay xam ne ñi ko doon def am na lu ñu doon diir. waaye Serigne Saliou la kenn xamul lu mu doon. dëgg la ndax daanaka dañoo xool ci mbooleem xibla yi nekk ci dëkk bi fu ci nekk ñu def fa école bu toll nii gratuite hmm. école publique lañ ko defoon mu nekk juróom-ñett ci dëkk bi. mi bokkoon na ci ñu ko Serigne Saliou doon saytuloo mu recensé ko barab bi boo ko yim doon yëpp ak maanu gëm ca doxale nga xam ne bokk na ci li ko Serigne Saliou waxoon mooy yi nga xam ne bi ma fi nekkee lañ ko fi indi rek loolu laay hmm. ci taxawaayam nag ginnaaw bi ci la Serigne Saliou barab bi jox ko ko mu indi fi daara ji daara ji ñi fi ñëw atum 1999 bi ni fii ñëw na ñëpp xam ni daara ji bâtiment yi doo nga fi nekk dëgg la bee ngeen gis ma jàkkaar loolu muy école yee ah. ak yii rek fi nekkoon hmm. amul leneen li fi nekk fii yëpp àll la woon soo masana taxaw fii daanaka boo sànnee sab gis da gis tëri bu bees wala kon léeg-léeg nga gis tëri bu bees du bari kon xam ngeen ne jamono yooyu dayoon na waa léeg-léeg soo masana bëgg a jógee ca catu daa catu école bee bëgg a ñëw fii day mel ne da ngaa bëgg a dox ku dox diggante tëli bees ak daara ji ndax soree gum sore booba ñu ay tout tànk lañ dafa compliqué woon waaye bokkoon nag ci taxawaay yu am solo yi si ñu defoon mooy dañu ñëw wutuloon ab ab garde corps sëñ Bass Diop daan jóge tëli bees bu ñëwee di saytu njàng mi suñu bi bu itam lépp lu ñeel yoxin wee caaju mu yor ko dëgg la amoon nañu benn garde corps yàlla na ko yàlla doolee dundal ku ñu wax bàyyi joom <laughs> moo ñu yoroon mm. yaakaar naa nañ moo yoroon gone yi di leen saytu di leen di leen euh, daa leen daa leen waaw xayitu ma taar saako waaw daa leen daa leen daa leen euh, garde bàyyi joom ndeysaan yàlla na ko yàlla doole fay moom moom itam ci firndeel ñoom kilifa yi ni ñu taxawoon ñun ni ñu taxawoon mooy wutal ñu garde ko ndax booba fii dafa doy waar booba biir daara ji fii oto yi dañu fi daan jaar fii aw yoon la woon diggante ñaari daara yi dara nekku nekkoon nañ fa ku ñu wax ñu Bassirou jaañ nekkoon ca wàll gee waaye ki tax waaye sëñ Abibu mii xam nga bi sañ ci daara ji hmm. comme ni ma ko waxee jot nañ fay jàng benn yoon dëgg la ay taabul baa ngi fi woon ay livre Sidi Rama Sidi Rama bi boobu laa ko xam hmm. bureau bee nga xam ne fa la sëñ Sonia bu Saaxo mi dëkk tey ana Moustapha liggéey bi hmm. booba ay Sidi Rama la feese dell waaye itam ñu def ko ci tablo yi boo ñëwee fii moom rab la woon bu doyoon waar waaye taabal yi fi nekkoon dañ ko daal jël soppi waaye ba nga ko soppee dara xaw ma nag ñaata la sëñ bu def ci jamono waaye gis ngeen miir bii ñoo ko fi def tey miir bii ngeen di gis sëñ bi bu saaxo mii ak ñi mu àndal ñoo takku taxaw miiree ko mu xaw ma nag lim ba naa moom xam na ko xam naa ne xaalis bay la ci def miir bii sëñ bi moo ko miiree moom ñu mu àndal loolu la fi njëkk a def waaye itam def ci ay toilette fekk nañ fi ay toilette mais xam nga toilette yi fi nekkoon méngoo wut ak daara dëgg dëgg la ñoom nag ñu takku taxaw def fi toilette yu mag yee ngeen di gis toilette yee ñoo ko fi def moom suñu yibu saaxo mi kon di ko suñu saa yi di jox école yi dong la fi la fi fekk waaye tey yaakaar naa bu doon Serigne Saliou mi ngi fi di war a daare ku nekk mu dellu xam fa mu ne woon li ma lay wax nag xooguma résultat daara ji de mais dama laa nekk ci la wax taxawaay yi kilifa am bi mu ñëwee def fi miir bi mu taxaw ci wut jàngalekat yu wóor yu mën a jàngale ñu fi jàngale dëgg la loolu dana may ma tudd mel ne Serigne Seexu Naali jàmbaar Serigne daara yu baree baree baree baree bari jaar nañ fi dëgg la waaye sëñ Seexuna Lemi jàpp naa ne mën naa ne moo révolutionné daara ji dëgg la jàmbaar la maanaam maanaam su ma waxee loolu mooy moo ñëw andi fi njàng mu ñu xamul woon maa ngi fàttaliku Seexuna Lemi mu ñëwee daara ji ah. dañ daan di ko waxtaane hmm. ndax am na fu mu jaar def fa ay ay mbir am mbir dëgg la gars yi dañ naan wax ne yii kii moom jàng baa dee rek Seexuna Lemi jàng baa dee <laughs> bi mu ñëwee Seexuna Lemi bi mu ñëwee yàlla xam na ci lañ tàmbalee xam ca dëgg-dëgg lañ lay wax mokkal alxuraan wallaahi dëgg la Cheikh Naali mi dëgg la waaye am pédagogie mën a jàngale am jikko itam yu rafet ci mën a jàngale ab jàngkat alxuraan mooy koo xam ne moom da lay jàngal di la neexal dëgg la man li maam moom suñu boroom dafa amoon suñu diggante maam complicité dëgg la man maa dégul rek ne la war waaye buñ masaan a bëri Cheikh Naali dama daan gëndal sax ay daal ay daal daan léeg mu di la jay nga xam ne dayoon na waar Cheikh naa fi jaar yu bare bëri man fu mu jaar ak man man Modou Gueye Sidi Fall daa Sey ak yeneen yi nit ba ci la ab Laat Fall ñi ñi mujjee jàng ki daara gi laataa moo dem man la ak ku ñuy wax Serigne Saliou Mbacké Saliou Mbacke mu Serigne Cheikhouna Mbacke mm. fekkoon na ku ñuy wax maam Baara nekkoon na mm. Cheikhouna li mii kon mën naa ne moo révolutionné daara ji maanaam moo fi indi njàng mu ñuy wax ci dëgg dëgg dëgg man mii moo ma jàngal ba ma mokkal alquran ba tàmbalee beqi ba tollu waskuru mm. mu door a bàyyi sëñ ji àggaleel ma man su ma mokkalee alquran mën naa wax ci Cheikhouna yi laa ko mokkale sëñ ji liggéey yasalunaka an ilahi la ma njëkk a toppal xaalis mu laa doon bind waaye man ki Cheikhouna laa Cheikhouna li mii laa jàngal alquran ba mokkal man ak ñeneen ñu bëree bëri ginnaaw bi nag comme moom waajuram daara la yoroon sëriñ seex li mm. ci la nag dellu dem foofee yor daara ja bi mu fi jógee nag taxawaay rafet yi nga xam ne am na ko fi am na kook itam fa mu nekkoon fa la jógee sëriñ nga xam ne sëriñ ji liggéey moomu moo nekk jarbaatub sëriñ ji sëriñ Abibu mm. mel ne sëriñ Abibu da koo waajaloon ndax sëriñ ji bi mu ñëwee ki daara ji li mu fi indi ak li mu fi taxawal day day mel ne kon sëñ bi bu saako sonnoon na ci moom lool. dëgg la la waaye day mel na lii ya taxoon. lii ya taxoon dëgg la. sëñ ji liggéey itam bi mu ñëwee yor daara ji résultat yu baree baree bare itam ci moom la soqi ko ndax wax naa la léegi Cheikh Naar yi bi mu fiy jógee sax saw na kañ la yet laa tàmbalee beqi. dëgg la man naa ne la def moom jàng lépp moo ko àggale. moo ko àggale ci laa beqee ci laa binde kaamil bind naa ñett ba tàmbali ñeenteelu kaamil waaw wax dëgg yàlla léeg-léeg gars yi ne moom muallim may leen ah deqi naa bind naa kaamil de bu dee bu dee alxuraan ji tamit de wax dëgg yàlla du taxaw ne nangam waaye baa jee tool de kenn daw ma ci yàpp xaw ma nag léegi te ñi ngi sant yaakaar la woon ba léegi ma nga fa waaye suñ ji liggéey moom ki taxawaay yi mu amoon ak dimbali gi ñu dimbali moo waral ñu mën a euh, nekk ci daara ji moom itam moo fi nekk entre 2003 ba jàpp naa ne 2010 2014. 2014 2014 ci diggante boobu ci la ma jàngale man mii ak ñu bare baree bare ci daara ji ba ñu génn taxawal yeneen ñi daara. incha allah ci diggante boobu ci la liggéey liggéey bu am solo bi mu liggéey ci Moustapha Sakho mii. nga xam ne Moustapha mii daa jàng ci ji liggéey comme man ni ma jàngee ci moom. te man maa ko fi njëkk. Moustapha Sakho bu ma ko taab ma ne dinaa ki ñëw ñu xam ne lii mu doon tey daara ji. daa am lu ko waral lu mu liggéey la am solo xëyul xëy def ko de dëgg la daa am fu xëyul xëy yor daara ji dafa am fu mu jaar lu mu liggéey moo ko may lii te loolu digganteem ak sëñ jiiri gay la ah. digganteem ak waay juróom bu góor waaye itam digganteem ak ñun ñi xam ne ay xaytam lañ sëñ moomu ku jàmbaare ngi noonu man jàpp naa ne li sëñ jiiri jàngal alxuraan ñu mokkal damay bañ di wax lu ma léerul waaye cent yi moom teg na ci daal cent personnes jot naa ne mat na ko. loolu moom jot naa ne mat na ko ndax li fi jàng mokkal alxuraan daa bari fii ci daara wax naa la njëkk sëñ jiirigéey si wax naa li jaar na fi bi sëñ jiirigéey ñëwee tàmbaliwaat waaye sëñ njiir bi ñëw itam moo gën a saytu daara ji doxal ko xanaa bala ñoo euh, continuer ñu dalal bu baax sëriñ baara Mbakke sëriñ baara euh, di jàngalekat bu mag borom xam-xam euh, sëriñ baara ya nga xam ne mooy jàngale xam-xam fële ci daaree sëriñ Habibu moom itam bokk ci kilifa yi ñu koy dalal bu baax baax di ko jox wàccuwaayam kon yaakaar naa maa ngi la doon wax léegi. waaw liggéeyu sa ji ci daara ji dama koy tënk ndax mënu ma koo wax. dëgg la sëñ ji li mu fi def mënu koo wax waaye moom li ko suñ borom defal mooy daa boole jàngal ñu alxuraan jàngal ñu ni ñuy jàngalee. am solo man yaakaar naa 2005 laa tàmbalee beq ci loxoy seex naa Naly mii mu jógee fi 2006 sëñ ji li jox ma donga donga dafa donga ab donga may jàngale booba xale su tuut laa waaye dafa lay jox benn gone naan la boole la ak moom di la saytu ci ni nga koy jàngale formateur di la wan waaye formation bi dafa am lu mu làmboo mooy sa njiiri bu la joxee gone léegi yow <laughs> xale bi yaag moom samedi ba talaata yaa xale bi yéenay nekk mais ay bu àllarba ba mu saytu ko mokkalut loo am solo loo solo ay bu àllarba ba mu saytu ko mokkalut am problème léegi nag day mujj kon formation bi day taasir ci yow ba koo yor day mokkal li muy jàng. ndax am na ku lay contrôler. Ah, moom bu la contrôler asar bu mokkul. <laughs> day jëf leen teeg yow. ci laa jógee mu jox ma ñaar jox ma ñett. jox ma ñeent jox ma juróom ba benn suur mu jox ma classe maa ngi fàttaliku suñu bu saaxa mas na ma may jàngale fee ci bureau ba mu kontaan ne ma dinaa la ñaanal suñu bu mii kon dafa am dafa am processus ah, bu muy jaar ak yow ki jox la benn ñaar ñett ñeent juróom ba mu jox la ko loolu fa la jaar ak man fa la jaar ak Moustapha Sakho mii fa la jaar ak ñu bari fa la jaar ak Serigne Sidi Fall ñoom Serigne Thierno Mbacke ñoom ak ñoo bari woon ki daal fi mu ne nii maa ngi tiim nii benn carnet boo xam ne dèjà maa ngi ci 19 personnes lii moom xam naa ko bind doo ko bind fi mu toog waaye ëpp na lii fop dëgg la dëgg ñi nga xam ne génn nañ ko daara ji ragal naa di jàngale ragal naa ne ëpp na lii da koo tënk nii rek lii sax yaakaar naa 22 personnes la mais ragal naa ne ëpp na ko dëgg la 22 personnes am na ki Serigne Cheikh Soda Dia moo fi njëkk moo ko alxuraan Serigne Abdou Lahad Fall Serigne Sidi Fall ku jàmbaare Serigne Basirou Ndiaye ndongulu xew lii di wax ak yéen mooy muallim Serigne Moustapha Sakho sëñ Baara Sakho sëriñ Saliou Cissé sëñ Dame Sey sëñ Alaaji Babou Silla sëriñ Soye bu Sakho sëriñ Baye seex Ndiaye sëriñ Saliou Thioy sëriñ Mame Cheikh Silla sëriñ Jiiri Sakho sëñ Dame sëy Ibrahima lant Lantana Lo Habibou Gaye ak sëriñ Cheikhouna Sakho nekk ci Dakar kon ñii ab lim la rek ci ñi yor daara ji doxal ko nekkoon jóge fi dem di jàng dem di jàngale lim bi nga xam ne nekk na fi jamono ji jege na ñaar téeméeri personne ñi nga xam ne ñoo fi nekk jamono ji jege nañu ñaar téeméer personne waaye li fi jàngale itam jamono ji itam ab lim la ñooñu itam dañ leen tàggat buñ génnee mën a jàngale mën a jàngale loolu sëñ jiile ko fi bàyyi woon léegi ci tënk ndax mënu maa mu bëgg maa téye ko lu bëree bëri dëgg la bi ñu demee nag ba 2014 sëñ jiile la fi yéeg ne kon ca dëgg-dëgg ñaari kuy mënuñoo bokk mbalka ñaari kuy mënuñoo bokk mbalka dëgg la ndax loolu damay may ma dugg ci Moustapha moom Moustapha ndeysaan bismillah ndax Moustapha dafa tërbiyu sëñ jiili moom insha allah ni mu ko tërbiyu mooy yàlla dogal na bi suñ borom mayee ko xam-xam mu mën a jàngale am mm. pédagogie mën a jàngale daa wuutu sëñ jiili ki njàngale mi insha allah nga xam ne dem nañ ba àgg sëñ jiili bu masaan a xëy ñëw ci mbaar mi day toog rek day toog rek xanaa toppi Aliou rek lay def Moustapha yor lépp sëñ jiili mën naa nekk këram semaine du ñëw Moustapha yor lépp. lépp moo yor jàngale mi yor saytu daara ji yor ñiy beq yor lépp. incha allah Moustapha loolu jàpp naa ne def na ko ñaar ba ñetti at yoo xam ne moo ko yor ci daara. allah man tamit bokkoon naa ci ñi ko def waaye Moustapha ku nekk da ngay nangu. la la borom bindee. dëgg la ni ko yàlla mayoon. loolu daa jafe woon ci ñu bari. Mm-hmm. benn ci man. muy lan mu yàlla may na ko mën naa jàngale. Mm-hmm. waaye lawet na. wala solo. Moustapha mën naa jàngale waaye yaru na. yaru na am naa jàngale waaye am na yërmande. am na yërmande. mën naa jàngale waaye itam am na sutura. am na sutura. de mooy. am na sutura loolu nag moo ko defoon. Hmm. daara ji amoon na li ñuy wax ay classe daara day am ay jiil ñoo xam ne dañuy xaw a la classe daal mais ñooñu ak a ñoo mënoon Moustapha waaye ak a ñoo dëngoo doon ak man <laughs> dëgg la la ko waraloon mooy Moustapha dafa nekkoon ku ku ku nooy ku dal ku mën a maslaha tax nag mujj boog gone yi lool dem na nag ba mujj daara ji man koo yor di ko saytu saytu woo xam ne wu am solo la ci daara ji loolu nag taxaw dem na ba àgg ci ginnaaw bi suñ ji dem na kon ñaari kuy mun ñoom bokk mbarka dëgg la ci la nag wax ne kon day ànd jënatul maxwaa dëgg la sof fa beneen daara tuddee ko mañ maxu noor yi ñi numéro 2 bàyyi Moustapha fii ba muy bàyyi suñ ji li kor bi muy dem ñun àndandoo a ñun waa daara yi hmm. benn délégation dem ci suñu Ibou Sakho na ko dañoo bëgg suñ ji bañ a dem ndax njot na rek bu Moustapha demee mbir mu di sotti dëgg dëgg la fekk na booba sëñ ji ne woon na Moustapha xam naa ci yow xam ne tant que maa ngi lay jege ah. sa talent du feeñ dëgg dëgg la daal dama lay xaw mët dëgg dëgg la waaye sëñ ji ne moom itam ci dégg diine rafetal ah. daal di bàyyi moom andu bàyyi ko waaye damaa jël 2014 ak léegi ah. li fi Moustapha jàngal alquran xam la suñ xam nga ñaar ñaar laata 2014 moom ah. Moustapha jàngal la ñu bari ñoo xam fii ay rakkam ñu bari moo leen jàngal ci kiitub suñ jiit waaye 2014 ak léegi ab lim la Moustapha jàngal ki daal ab lim ab lim ëpp na 40 personnes de ab liggéey la <laughs> damay wax li nga xam ne moom bu ko waxee kenn du ma wedd ëpp na 40 personnes waaye lim ba moom moo ko xam ñu bind kaamil léegi nag loolu liggéey boobu mooy law suñ ji nekk ñenatu max waa dafa doxal sëriñ Basiiru Njaay sanci xayra de yàlla dogal daara ji nekk ca caaxo mm. sëriñ euh, Baye Diop FDR mm. taxawal ko mm. sëriñ Fallou Sakho mi jàng ci daara gi jàng ci loxoy Moustapha Sakho mi di rakkam nekk fa man ma sanci mañ ma woon noonu alxamis nekk asalem macha allah tamit ni fa nekk di ñot ñoti léeg-léeg gars na ma ndax muallim mi ngi jàngale ma leen sama daara na ñëw dëgg dëgg man li may wax rek mooy ku ñëw rek gis xam wax ba xam ña nga ndax fa suñu yéenee bako dëgg ndax loolu lañu suñu kilifa yi yaree te xam na ne loolu mooy seenu bëgg kon daanu ci wéy leneen ñuy nekkaat dañoo bëggee wan rek ne dong ab daara tëlewul dara tëlewul dara war mën a nekk ci daara ji waaye itam man koo booleeg laneen ndax waaw positivité bi mooy tey ah. lu bari ci daara yi bu soxlaa yu mel nii mën naa leen ko taxawul dëgg la par rapport ak bu ñu bëggoon ci ñeneen ñu di leen teg loo xam ne attanuñu ko ak muallim loolu day day day yomb ak yeneen i mbir kon loolu bokk na ci liggéeyu daara ji bokk na ci itam daara ji mbi taxawal waaw hmm? ah. macha allah. waaw xam naa su ma jeexalee ci sax dañoo bëgg a euh, jël tuuti temps rek xaw a def tuuti temps liq wane ki daara ji su ma noppee dañuy teg benn séquence boo xam ne defoon naa ko bëgg démb ki daara ji ci benn émission Moustapha Sakho ñëwaat pour gën a leeral dox yi daara ji dana ci am solo waaye pour tënk foofu rek kon mooy lii mooy daara yi Majmahun Nurayni li andi Majmahun Nurayni mooy dafa am ki koñ bi ñu tudd benn daayira boo xam ne soppee Sëñ Fall la woon hmm. fattul yaakaar naa fattul wahab la hmm. soppee Sëñ Fall hmm. ñoo dem ba mu yàgg ñu gis na kat daara ji war nañ cee mën ñëw tàbbal seen loxo ñu ñëw dugg fii indi seen lépp yor lu ñeel doxinu daara yi ci lu fi yàqu ci fay ay facture courant yu ci ajo yu bëree bëri ñu koy def sëriñ jiiri moom si Abdou Lahad ñëw kon soppi kan sul mutadinaak fattul wahaa ba kon daara koy boole tudde ko ma Majmahun Nurayni lii moo indi tur dara ji daayira boobu boobu ba léegi ñu ngi fi hmm. barab nag bu am bu am barke ndax wax naa leen ni barab bi suñu bi bu saaxu moo fi indi bi mais gis ngeen mbaar mi mbaar mi xam ngeen ne ay million ay taxawaayam la fi amee macha allah mbaar mii mbaar mii moo ko fi jiitu bële xam ngeen ne mbaar mi itam bii du caaxaan du caaxaan sëñ bu saako ci taxawaayam la fi amee moo fi andi mbaar mi andi ci yee jumaa ji ngeen di gis ci taxawaayam la ko fi andi ndax moom xaarul xaaru kenn day def rek sëñ Saaliw dénk na ko barab bi def na fi production boo xam ne bu sëñ Saaliw ñëwoon tey ji li mu fi liggéey dina xam ne ne barab bi liggéey nañ ko ëppoon na ko jar na ko waaye itam yorin yu ngi koy itam da koy wane am na itam naal yu naan bëgg na daara am bâtiment boo xam ne mm. fi la daara yi di féetewoo waaye itam ni mu defee résultat ki daara yi góor ñi am ay jigéen am na résultat jigéen waaye bëgg na mu gën a kawe kon loolu bokk na ci waaye itam barab la boo xam ne tam ni ñu ciy mokkalee alxuraan hmm. damay wax Moussa ko yàgg ko ba nga xamee ne daara ji ñi fi mokkal alxuraan maanaam jàppoo ne sa njàmbaar barkeel la barkeel la fii bëri ko ci mbattal la dëgg dëgg nit day nekk fenn jaxasoo lool jàpp na mënut a amal xam yow xam mu ne waaye ma taxaway ci ab vision sëñ Yiw Saaxo mm. yóbbu ko muy jàng ca sëñ Afe daan jógee fii di dem booba ñun xamuñu woon naka Seexuna Faal moom fii ak at mooy yor xam-xamu daara ji bi ñuy am at waajtaay la a ah, ñun ñi beeg daara ji ku beqi rek ku tàmbalee beqi rek da ngay dem tàmbalee jàng xam-xam bala ngay bind kaamil mm. man jàpp naa ne bi may bind kaamil maa ngi jàng risaala lu solo lu am solo bind kaamil maa ngi jàng risaala naan man bu ma bindee kaamil mën naa génn daara ji moom kii di wér loolu taxawaay bu saaxo la ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ñu ko bëggoon a tudd fii dana dana jafe tellement ba nga xam ne waaw waaye nag daal mooy ñi ngi sant rek bu baax di sant ki taxawaay yi sëñ Siri Fall moom itam ñu ngi sant bu baax di ñaan itam ñi ñaanal ko sëñ Siri Fall moomu kenn ku nekk bu ko mënee mu jàngal ko ginnaaw Fatiha euh, fukki Ixlaas ak benn ñu ñaanal ko suñu borom dolli ko yërmande waaye itam jéggal ko fii tamit sëriñ Basiiru Kebe nekk na fi sëriñ Basiiru Kebe bokk na ci ñi yor daara ji moo nekk ci wet gële hmm. di saytu daara ji di fi liggéey liggéey bu am solo moom itam ñu ngi ko sant bu baax di ko gërëm xam naa kon ngir bañ a guddal ragal naa ni ah, lii lenn la ci liñ bëggoon a def xamle ko ci daaree mañ ma wut noori nii hmm. ba ñu ko tàmbalee ba tey ji ak itam li nga xam ne am na fi ci ay liggéey ah. am na yu bare bare yoo xam ne sax bëggoon nañ cee ñëw waaye nag jot gi duñu ko permettre léegi kon dañuy taxawandi foofu ah, wax ñi nga xam ne kon ñooy technique bi ci Euh, muallim bi ñu vidéo boobu yi nga xam ne amoon nañ ko fan yi def ko ñu divisé ko ci ecran yi kii ñu xam tuuti li nga xam ne kon mooy liggéey daara ji su ko defee nag ñu door a dugal xale yi mokkal ngeen wéyal programme bi sëñ Mignès sëriñ Mamballa ak sëriñ Baye Abdou Diop maa ngi lu baax nag ci guddal gi di sant bu baax di gërëm di wax ne seen kóolute mooy sunu sak